sénégalais yi dañoo gëm loolu di ko dund. parce tey jii daf maa ree ci yoon bay bëgg a dee. waa jii 43 ans la am mais maanaam mënul am lu so dara mënul am dara. lu ba mu dalee liggéey yàgg na tukki na dem ni su sous région bi. Hmm. li mineebru na ut jàng na dawal. lu ne mi ngi koy def day xëy suba fajar lay xëy génn këram ngoon dang-dangi ba ngoon mais mënul am dara am na jabar mënul joxe dépense yaayam mooy aawo. papaam am na ñaareel. Mhm. frère am bi nga xam ne moom la ñaareel bi jur ñu ngi bitim réew. daanaka moo yor kër gi. Mhm. lii nag mu dem ci papaam ñu ko papa dama bëgg nga ñaanal ma wa utal ma ay ñaan ndax sono naa toog mënu maa xëy sax lijjanti ab téeméer wala 1000 francs. mu sotti mhm. paa bi ni ko sa yaay ko liggéey ci kër gi. lan affaire liggéeyu nday la. jaay yow déglul waa ah? liggéey bu liggéey naa ko bay naa. Ah, def naa ma ne ba lu ne liggéey naa ko liggéey bu dul liggéey bu dul lislaam nangu rek naa ko ba am quarante deux quarante deux cent quarante trois cent te bëgguma réensi dara dépasse ndax mënu ma ko am damay xëy am problème mu mille franc dama ko mën a réglé affaire bi nag jaaxal ma jaaxal ma jaaxal ma ba jéggi dara te bi ma waaw bi ma toogee ba ci yàgg ma waxtaan ak sama xel ma ne lii kat xaral ma waxtaan ak ma waxtaan ak sama waajur góor parce que lii man am na am na am na waral daal ci laa waxtaan ak sama waajur góor nag moom mu teral ma ne ma ah, dama la am loo xam ne mënu ma ko woon a wax doom na nawle la waaye problème bi si liggéeyu ndey la ma ne ko xam ah, mu ne waaw parce que àgg naag man ci ne ma sa yaay mos na maa tëdd ak moom benn jour wax na ma ko joo xam ne si nii xaj bi topp ci ab sàmmam sax wax jooju muy wax xaj bi topp ci ab sàmmam sax doo doo doo doo ko wax su dee wax daal nee ma daal problème bi mu liggéey ndey la nag mu liggéey ndey la maanaam ne la sa yaay liggéeyul ci kër voilà exact exactement loolu la ma wax carrément waaw dafa ne ma sa yaay de yaay liggéey liggéey maam liggéey ci liggéey bu rafet ci kër gi ndax mosuma ko ne defal mu def mosuma ne ko bàyyil mu bàyyi dama dama jege na kàddu bi dama daan maam dama daan dama daan soxla sax maanaam mu gàntal ma waaw li ma mu gàntal ma lu wax bu nekk dara lu wax bu nekk sama der bi wax na wax sax yemu xam mu mel moom mu ci dara nag ndax xam na xam na maanaam xam na situation bi nekk xam na li ko waral nekk nañ loo xamante ko wax ca kaw man nag maa dem ba sonn daala nag la la wax tegu defuloo benn conseil leen la kon sooy mere mereel sa yaay. exactement. ba dem naa sax ba na ma yaay jege sax a yaay dama ko cee xaw a dama ko cee xaw a mere daal ndax dem naa ba seen sama yaay dama ko cee mere parce que loolu dafa metti. am ngay mag wala am ngay rak. am naay rak man sama taaw yaay maay sama taaw papa. sa rakk est-ce que ñoo la tane. sama rak yi am naa sama rak boo xam ne ñoo bokk benn baay. moom yàlla dogal na dafa tukki. bokk leen yaay. jërëjëf baay lañ boobu. ñi nga bokkal ndey ak baay nag ana ñu ñoom. ñoo bokkal ndey ak baay ñaata ci góor la jàmm ay xale lañ. est-ce que ñoo la tane ñoom. ñooñu ay xale lañ li a xam sa waajuru góor ak sa waajuru jigéen est ba léegi. ñoo bokk genn kër. ñi ngi ci biir kër gi. ñi ngi ci biir kër gi. léegi kon daal sa mën naa ni sa waajuru góor ba léegi moo yor kër gi. sama rakk bu ñu ma wax sama doom sama rakk doom mbay bi nii ma lay wax ci ci picc nii daanaka mën naa ne moo lu ma for nag lu boobu yaay bay wax fekk doomam ji nekk bitim réew moo yor kër gi. waaw lépp la lépp day sàcc ko ñu ngeen ko ci kër gi sàcc sax ñu ngeen ko ci kër gi waaw ma ne sàcc sax yéen yéen ñu ci kër gi sàcc waaw daanaka lu fi réer ci kër gi ñu ne maanaam sama yaay kay moom mi mi am na benn suul dem naa ba ba ba waxtaan na ba yàgg ma ne daal naa naa bàyyi noonu ndax bëgguma sama yaay bëgguma feneen bëgguma dara lu ko naqari te wax dëgg yàlla xam naa ne loolu su ma ko waxee dana am lu ko naqari dem naa ne bu bëggoon ci waxtaan moom daal expliqué ko ma man ko dañ ma wax sama waa ji dama wax lii ak lii waaye mu ne bokki bëgg wax rek su ma xalaataatee daal di koy bàyyi ndax dégg nga dégg nga liggéeyu ndey añub doom pour man de li may wax na man saa n'engage que moi. gaa yi pa paayee ko génne woon rek pour naxe ko maire yi. dañ koy naxe rek mais fi mu nii fii lu fi waaye am yaa ko liggéeyal sa bopp de. su sa yaay lan la si Sénégal li ñu wooyee liggéey ndey kii ndeyam liggéey na wala kii tekki na lu luñ koy wooyee parce que ku am xaalis. léegi nag ku amul xaalis daal yow sa yaay liggéeyul. ku amul immeuble sa yaay liggéeyul. Mhm. ku yor ma xanaa waa léegi xanaa Messi moom dañoo gën liggéey ndey. Ronaldo ndeyam a gën a liggéey suñu ndey lu tax Ronaldo ak Messi gën ñoo tekki seen yaayee gën a liggéey suñu yaay. c'est pas ça du loolu. fii soo yorul yàlla day dogal yow. ku ne sa wërsëg wërsëg. Mm-hmm. damay damay damay dama doon dégg benn wéykat bu mag bu doon wax naan loo gëm. bu yàggee mu gëm gëm loola. Mm-hmm. waaw man Ndiaye Xoslumaan. waaw mm-hmm. cest à nga baan dafa am réalité yoo da boo demee ba kale. nga koy gëm. wala nga koy nga koy génnee. parce que man mënu ko. mais da fekk ko sàcc alal réew mi. gaa yi wër ko di ko takk tagg naan ko sa ndeyee ko liggéey fekk ndeyam ab sàcc lu jur. <laughs> dëgg la de. xooluma loolu fu nit fu ko nit di waxe léegi nag tey jii ki nga xam ne ustaas bi nga xam ne moo nekk ci koñ bi. Hmm. saan di ñu koy di jàng alxuraan ñu koy xale yi di ko àllarba kooku ustaas boobu ndeyam liggéey. ay kooku rek la ndeyam liggéey. Hmm, hmm, ah. dëgg la de ñu koy ba ki imam bi nga xam ne mooy jiite waa koñ bi kooku ndeyam liggéey. ñoo yàq dëkk bi taasukat yi taasukat yi ni naan ku am sa ndey tax ku mënul dara sa ndey tax. ban bàyyi ñu loolu c'est pas vrai loolu c'est pas vrai. ñun dañuy wax rek. déglu waa ji pareegul. ayca waaw léegi yow sa soxna nu mu dundee loolu waxtaan nga ceeg sa soxna. sama soxna ma ko mu ci dara moom. ndax fii nii sama soxna ci boppam maanaam parce que maa ngi moom sëy nañ parce que war a mat huit cent wala ko ndax. waaye moom itamit ci boppam damaa dama rek ci ginnaaw war naa mat ay trois mois wala quatre gis. mu def benn problème boo xam si ni naa ba bëggoon ci cee wàcc bi mu waxee sama papa dem bàyyi ma fi dem ànd ak beneen metti na ma trop loolu tamit ba léegi affaire njaalo téléphone téléphone am la yoroon di woote sama rakk ne ma ah te lii téléphone bari na te ba xam xool ba xam téléphone bi ndax lay ñëw di togg téléphone bi day sonné mu bàyyi li muy togg dem dugg ci yëg naa ko mu ne mu ne ma ah ma ne ko diw dëkk béréb sangam ñu moroon nangam am na nga ak moom njaalo ngeen am na ci lu wér moom ba ba am lu leer dem na saana mari na ba ba porte plainte ba ba ba porte plainte yi ñaar dañ leen woo ngeen dajee ñu sukk toog sama kanam di jooy ne ma avant ngay def porte plainte ma waroon la wax soo ma laajoon mastéri gërëm ma ne ko def naa ne ma def ba pare daal léegi daal dama wax su ma waxee lu dal sama xel ma bàyyi su ma waxee lu dal sama xel nag ma yóbbu kayit bi mu wóor leen te booba dama ko doon ëpp doon. xëy rek da nga ko doon tiital. waaw dama ko doon tiital. ba booba sax jàpp téléphone bi am na parce que téléphone bi ma woote yëpp am na dama ko doon tiital boobu. bu ma defee bu ma defee noonu nag mu ne ma ah ñoo ko ñoo ko dee waaye jiw dëkk béréb sàngam yi dëkk bi mu dëkkoon boo maa ngi moom daje nañ nangam nangam. sama benn xarit laa ko wax. mu ne ma léegi mu ne ma léegi lan moo ci sa xalaat ma ne ko kay bëgg bëgg ci xalaat moo tax ma ñëw ci yow mun ma doon koy wax mun ma doon koy wax sa waajuru góor ma ne ko ah sama soxna nag mu ne ko dama koy wax sama waajuru góor dana ma dimbali ma sànq si parce que boo ko waxee dana ma woo laaj man fu ma wooyee du ma du ma xam lu ma koy wax. su subaa incha allah dinañ koo gën a yeggale. Mm-hmm. mais am na laaj boo ma doon laaj. ni da nga koy laaj nit ñi. ni ma ndax papa ji li mu laaj li mu wax booy bi. li mu ko wax ndax moo ko war a wax. ndax ndax ndax war na ko ko wax. waaw ndax war na ko wax. man pour man papa ji dafa manqué de respect xale bi. Mm-hmm. la nga séq sama yaay. man waruma koo xam ba ngeen gis di bëggante di takkante man waruma ko xam léegi ngeen ci biir néeg ba ba mu wax la ko man doom laa waruma koo xam. su ma amee problème ba jaaxle ba ñëw ci yow danga maa war a dëfal teg ma ci wu yoon man pour man c'est un père irresponsable. loolu sama xalaat la man. xanaa xam nga yenn saa yi par exemple. xew ci lii xew ci diggante jëkkër ak jabar. jiim hmm. sa doom naa mais ñaar war a sëyee de. li xew ci jëkkër jabar ñaar ko séq. waaw ah. souvent paa dañuy tooñ mère yi. waaw ah. mais bu soxla daal sa soxna yow yow ngay liggéey au bureau. muy liggéey obiro ngay wàcc mu lay toggal reer di la yàkkal ak ak yooyu. kooku jàngat jàngat xëy na ndax loolu la ñuy wax liggéey. liggéey day daal jigéen moom day muñ. jabar jëkkërit day muñ. déggal borom kër ñoom ñaan ñëppay muñ c'est que xam nga ne war a sëy lan la respect mhm. sa jabar dalay respecté. respecté teg jox la tër am yërmande ci yow. pour man amul moom ak considération yow tamit euh, yow miy jëkkër. yow miy yow miy jëkkër tamit da nga war a respecté sa jabar jox ko cër teg ko place yéen ñaar kenn ku nekk teg sa moroom sa place doo soo leen ko soo leen ko sëyee noonu doom yi baax ngeen di am te ku nekk dina ku ne suturaal sa morom waaye tey jii sooy dangay saaga ndey sa jabar publiquement di ko toroxal publiquement di ko def lu nekk publiquement ndaw sa di ko muñ ñu ni kooku ngi liggéey ay mm-hmm. diw mi li mu daj ci sëyam bi mm-hmm. ay di li ko jëkkëram ji jëkkër ji weex la boroom kër yoo xam ne ay góor ñoo xam ne ànduma ak ñoom ni ñuy toppatoowee seen i soxna waaw mais am na ay soxna yoo xam ne tamit nañu war a sëyee sëyewuñ ko waaw loolu dëgg la sëy amour la waaw ak considération waaw confiance ak respect waaw mhm. loolu bu amee ci sëy waaw mooy yaa ngi tarbiyu sa borom kër waaw loolu boo ko amee yàlla mën naa dimbali nga am ay doom yu baax mais pas jàmm waaw pas jël jigéen di ko jàmm loo waaw c'est tey kii kii kii li mu wax doom ci sa yaay moo ko fi liggéeyul am na bés ma koy sàkk mu bañ loolu yoonu xale bi